Ah, surprise la sa waajur bu jigéen la ñu waxanteel téléphone mu nar a ñëw tey fii nga xamante ne moom mooy ah, si ah, si si si plateau bi joxe témoignage yi nga xamante ne loolu la dund depuis bi nga bi nga xamante ne yoon téye na la ak témoignage bi nga xamante ne moom la mën a joxe ci kem yegsil soxna si yegsil man sama place laa lay jox dangay toogee nii wala jox ko chaise. jërëjëf ñun ñoo ko dox juste rek euh, benn euh, cinq minutes boo xamante ne dinañu defal benn témoignage ci pam Ndiaye parce que lu ne dégg nañ ko. bi nga xamante ne Pape Ndiaye dugg na prison que ne lii ak waajuram la du wax ak moom euh, que ni Pape Ndiaye lii xamoon nañ ne dina ko dal waaye nit ku nekk rek boo nekkee si problème ñu gis nam ko taxawee woon ñi fa daan njëkk de ci 5 heures du matin wala di ci 6 heures wala 17 heures ñu daan dem fan lañ ko doon fekk maman noo def ñu ngi lay nuyu. di la di la dalal ci plateau bi. asalaamualeykum. Mhm. maa ngi leen di nuyu. Mhm. gannaaw ba ma asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu gannaaw ba ma. Oh. yaay dalal Sénégal yëpp a lay seetaan lii surprise la si Pape. waaye ne yëgul woon ne euh, tey di nga ñëw kàddu yu rek ak seede yoo xam ne nga ko def si moom. joxel kàddu yi rek ak seede yi. asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam. gannaaw ba ma gërëmee sama ñaari way wayjur mm-hmm. jullit ci sang bu tedd bi salallaahu alayhi wa maa ngi di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyu monsieur euh, euh, directeur général Cheikh Tidiane Niass maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm personnel Walf bi yëpp personnelu émission balance ñëpp maa ngi di gërëm di gërëm Sénégal yëpp diaspora yi fans club bi bàyyiwuma kenn ndax ñoo tax affaire bi diisul ci man su ma geesoo gis leen rek sama xel day dal di gërëm soxnaam mention spéciale. kenn du moom di gërëm ay mbokkam. Mhm. di gërëm it samay mbokk. Mhm. lii nattu la rek bu ko yàlla teg. Mhm. mu muñ ko jël ko avec philosophie. ñun ñëpp ñu xalaatee ko noonu. muñee ko noonu. pap da di doom joo xamante ni benn la ci man. du ñaar du ñett. benn kottu la. moom rek nga am ci doom. moom kese laa am. Mhm. benn la du ñaar du ñett. Mhm. yan te boo tey boo ñu doon doxal témoignage ci Pape lan nga lan nga ñu mën a wax ci moom. Pape xolam dafa rafet. Mhm. kum gis def la ni boppam Pape xamul noonu. noonam mën na ñëw ba ren di ko du ko xam. Pape xamul noonam. foo ko fekk mu ngi ree. ko fekk mu ngi mu ngi ree. kum gis def la ni boppam. kum gis def la ni boppam. man de complicité bi ma am ak moom mhm. ah rëy na de mhm. rëy na mhm. du def lu ma yëgul lu may defit moom it da koy yëg paak maak moom dañoo mel ni ay doomu nijaay doom bàjjen wër na jabaram ay nijaay doom bàjjen ndax dafa am kal ci suñ diggante jóob ak njaay paap daal sama digganteeg moom dama koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat musal ko ci seytaane musal ko ci noon amiin sama digganteeg Pape daal bu ma ko doon wax fii ba suba du jeex. noo dundee ay ay ay guddi kasoom. ndax dañu ne guddi kasoom ca ndey a gën a metti keroog bañ ko jàllalee. métti mhm. woon na trop keroog goroom moo ma dëfal. Mhm. Alima yaayu Fatima. keroog moo ma dëfal. métti mhm. woon na trop. day mel ni munoo doo ko mën a expliquer. keroog alima moom moo ma dëfal moo ma dëfal mhm. billaay alima moo ma dëfal métti mhm. woon na trop mais au fur et à mesure ngay dem mhm. Fatima ni ci sa wet fans club bi ndeysaan mbokk yi ba dootoo ko sentirati nag dootoo ko sentirati wax fa dëgg yàlla dootoo ko sentirati ñëwaan balaa may dem sax la yegg si fekk fa xaritam yi am di jàmmam yi fekk fa it waa kër papaam mention spéciale xam nga pape mi man papam ay noppam bañ ma koy may 19 ans la am boobu maa ngi jàng. ndeysaan xaw ma dara mais rakku papam moo ko yar. la Grand Dakar. def lu mu war a def lépp ci moom. gàcce ngalaama. Ablaye Guèye gàcce ngalaama. lan moo nekkoon sa dernier kàddu. sama dernier kàddu mooy di ko gërëm di ko sant. di ko ñaanal yàlla. Mhm. Pape dama koy ñaanal yàlla ca kaw ca kanam. Mhm. yàlla bu mu taseeg noonu yàlla bu ko seytaane fëkk yàlla nga ma ko yàlla iral sàmmal ma ko bàyyi kook soxnaam si bañ jokk la ne asamaan suuf Pape daal dama koy ñaanal yàlla mhm. fu ma toll dama koy ñaanal yàlla fu ma toll dama koy yàlla musal ko ci lépp luy lore yàlla ko yàlla musal ci lépp luy lore ci kattanu suñu borom amiin waay waaw kooku nag moo nekkoon waajuru jigéen wu Pape Ndiaye yëgutoon ne tey ah, dafa nar a ñëw si plateau bi mais fallait rek euh, ñu indi ko euh, mu waxtaan ak askan wi def témoignage parce que lii média yi di bind bëri na lu nit ñi di wax bëri na fallait tey ñu indi leeral ne waajur wu jigéen ak mu mosuñoo réeroowu ci dara ñoom ñaar dañuy waxtaan ñaanal na ko ci lu nekk kon nag euh, looloo taxoon tey euh, ñu ñu indil leen ko pour ngeen mën a waxtaan euh, pap nag dafa am benn poñ boo xam ne dëgg na metti na mais bu nekkee rek am nga loo bëgg a wax ci liñ fi invité ci sa yaay balaa ñoo jàll ci beneen poñ Pam Ndiaye benn benn benn kii rek kàddu boo mën a yëkkate rek même bu nekkee dangay ngay sànni euh, suñu yaay ñaan rek Pape bul jooy waay yaay de dafa dafa dafa sori si ndeyam àngoone euh, euh, Pape ah day mel ni palaato bi fi mu toll nii tubaab fa kàlla macha allah nee na nee na selaw Pape Ndiaye ah kon nag émission bi Pape. léegi xam nga nu ñuy def euh, euh, de toute façon deux poñ lañ naroon waxtaanee tey mooy première partie bi ak deuxième partie bi première partie bi nag fii lañ koy daggale euh, deuxième partie bi mardi bi di ñëw lañ ko nar a waxtaanee euh, balaa may jégg ci loolu comme man rek maa des ci plateau bi te su ma sañoon jooy mais mënumaa jooy foog ma waxtaan ak yéen euh, dañ leen di jox dig daje rek beneen mardi prochain pour ñu eggali deuxième partie wu balance lu xaj ci li duuf ci kin li lu duuf ci nag bi yëpp xajul ci biir kin bi dinañ dellu si si li nga xam ne moom mooy les condoléances des prisonniers deuxième partie yow ci cas yi nga xamante ne yëpp Pape Ndiaye waroon na ci wax di di sant di gërëm kii nga xamante ne moom mooy pël bu rafet di jabaru Pape Ndiaye na ko fu nekk di sant kii nga xamante ne moom mooy magam wu góor di sant tamit kii nga xamante ne rek mooy jabaram ak Guèye Couture mi nga xam ne moo accompagné Pape si toute la saison cinq de Balance ndax ko accompagné tamit ci saison 6 bi ñu jëm di remercier caméraman yi di remercier ki nga xamante ne tey moo ñu sotal solal muy KD Fashion by Dieyna euh, bi nga xamante ne mu nga nekk fële sa Kër Massar euh, ñu koy wooyee waa Kër Serigne euh, Bass bu Serigne Fallou Galas spécialiste dans les hautes coutures et tout ce que vous voulez actuellement si vous voulez les contacter vous appelez juste sur le 77 507 507 27 78 210 48 52 78 210 48 et 52 ki nga xam ne moo ñu mag yi nag moom moo ngi nekk. nekk fële nga xamante ne moom mooy Nord Foire euh, mu ngi tudd euh, euh, Ramses Coiffure moom moo ñu mag yee man ak ki nga xamante ne moom mooy Euh, Ngone Saliou euh, tey nag euh, émission bi niñ ko niñ ko nar a daggee metti na torop mais dañ leen di ñaanal la ngeen jéggal ñu ko ci beneen mardi ñu ñëwaat ci yeneen poñ di remercier camaraman yi nga xamante ne nag ñoo ñu gunge ci émission bi tey di remercier technique bi ak production bi di remercier encore une fois de plus ñi nga xamante ne ñoom ñooy fans club bu Balance mënumaa tëj émission bi te remercier ñu waa fan fans club bu bronze remercier wu ñu ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi remercier wu ñu ki nga xamante ne moom mooy borom kër gi Cheikh ñas li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla suñu borom taxaw ndax nee naa la ki nga xamante ne moom mooy sa sa ki nga ki ngay liggéeyal di Pam Ndiaye taxaw gi nga ko taxaw ne dina nga tax ne ñi ngay liggéeyal yëpp dootuñ la ragalati gisuma benn patron place boo xamante ne taxawoo na ki nga xam ne mu ngi koy liggéeyal comme ni nga taxawee Pam Ndiaye toogoo rek di yónnee toogoo rek di joxe sa xaalis déplacé wu nga jugal si temps moralement soutenir ki nga xam ne moom mooy sa jabar euh, Pam Ndiaye dama koy bàyyi rek benn minute reprendre na ses esprits pour mu mën a tàggoo ñu tëj émission bi Pape xam naa euh, waxaat fii nii du yomb sax ndax mhm. euh, sama yaay ji li mu leen wax lépp dëgg la waaye man tam damay dellu di ko gërëm mhm. ndax amul benn visite boo xamante ne doon na ko tardé fële nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy Cap Manuel dëgg la népp lu wayjur waree taxaw doom rek def euh, def na ko mhm. Euh, wax dëgg yàlla fi toll nii wax daf ma jafe. moo tax mhm. dama koy dama koy. dagg ba beneen maa te te ñett ñi ñett ñu ma cher lañ maa leen koy ñaan ñëw leen rek ñëw leen ci ñëw leen rek ñu xam ni ñett ñu ma cher lañ te wax dëgg yàlla tax taxaw nañ ma ñu nekk ci man ñoom ñoo ko def ci man ka nekk journaliste fii ci Walfadjri moom tam yóbbante ma ci yow mu ngi lay bégee bu baax di la nuyu di la ziar Salif foog naa sa confrère la te mu ngi fii ci Walfadjri moom tam di fi def liggéey bu am solo jërëjëf jërëjëf ñoom moom tam ñu ngi koy di ma di remercier wale rek fans club bu balance yëpp di remercier askanu Sénégal wi nga xamante ne ñoom ñëpp nekkoon si ginnaaw pap def seen i t-shirt ñëw tribunal ba taxawu ko que mu nekk ay mbokkam que mu nekk ñi nga xam ne ñoom la doon liggéey fii ku mel ni Ousin ñoom tamit tubax fakàlla macha allah yàlla na leen yàlla defal lafal cat ñu leen di nuyu yéen ñëpp yegg si leen ngeen ñëw ngeen ñëw si plateau bi pël bu rafet nii voilà pël bu rafet ak ngoog jigéen ju man góor nee naa la derrière euh, un grand homme il toujours une grande dame franchement tubaar fakal la macha allah taxawu pap euh, guddi ak bëccëg euh, géey Couture a ngi noonu Guèye Couture yàlla na la yàlla defal jàmm tubaar fakal la macha allah kii mooy frère Ah, kii tamit soxnay frère am la tuwaar fa la macha allah ndax lii rek moo neex si àdduna boo amee ah, problème ñi nga xam ne ñooy say mbokk daal di lay wër ñi nga xamante ne ñooy askanu Sénégal topp si ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal ñëpp taxawu ko tubaar fa la macha allah yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ma ko waxee lépp xaju fi tey mais incha allah dañ leen di jox dig daje beneen mardi naka indi yeneen leeral ah, ci biir li nga xamante ne moom mooy le dossier de Pam Ndiaye jeexagul beneen mardi alors je soirée et à mardi prochain. Au revoir.